kon na kuy leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm Tiwaawana woote kon na kuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm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 mooy bisu cheikh Mouhamadul Mansour si ibnu Serigne kër si ñu di ko delloo njukkal ak mboolem koo xam ni mës na la jàngal yar la tey ji ñëpp dajaloo dikk Tiwaawan ci ndigal li nga xamante ni mu ngi bàyyi ko ci xalif général des Tidiane di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si jaare ci loxol ki nga xamante ni moo ko fi nekkal di Serigne Abdoul Aziz si al ibn ak ay rakkam ngir fàttaliku. lépp loo xam ne sëriñ Mansour nekk woon na ko fi ci diine ji ak lislaam bi ak tariqa bi li ngeen ciy laaj nag ñett weesuwu ko vingt 1922 la Cheikh Seydil Hadji Malick génn àdduna bi mu génnee àdduna it sëriñ kër si la fi bàyyi woon di baayam sëriñ Babacar ni woon Maodo daal ñett la ma bàyyeel diine ji tariqa bi bokk gi ñett yi nag man kër ku ci duut baaraam dinaa ko dinaa la duut baaraam ñett yooyu nag la sëriñ Mansour doon sàmm muy diine jeeg tariqa bi ak bokk gi moom nag yàlla def na sutura ci nga xamante ni moo fi nekkoon ba jël yan bi yan ko ko muy Cheikh Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh yàlla na yàlla yokk leeram euh, moom day dëgg-dëgg ñëpp bokk nañu d'accord ci xam yàllaam ak mat gi mu matoon ak li mu nekke woon moom Cheikh Hadji Abdoul Aziz Dabakh su demee ba Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif xëy jox ko ndigal ni ko kat joxal ma lii Cheikh Mouhamadul Mansour ni ko kat mag ñi tey moom la ñu yaakaar ci li nga xamante ni mooy bopp tariqa bi mu yor ko def lépp nag Serigne Mansour fii la juddoo ci kër gi 1925 yàlla dogal na booba ak léegi Serigne Mansour kenn xamu ko lu dul ci daara jàng ak jàngale Alaaji Abdu wax na ko ko ne ko kat yow mi nga xamante ni yaa majma al bahrayni yow mi nga xamante ni yaa ndar képp ñaari géeju xam-xam yi nga xam ni bii mooy géeju xam-xamu sharia bii di géeju xaqiqa yaa alamal huda yow mi nga xam ni yaa yor drapeau njub faxral ashirati yow mi nga xam ni yow la famille Cheikh Seydi El Hadji Malick di tiitaroo tey ndax njub gu nekk ci yow ak xam-xam ak leer goo xamante yàlla def na ko ci sa kanam ngay koo xamante ni nii daal fu la nit fekk muuñ yulli ci say poos di joxe yow mi nga xamante ni yaay kënzel ghina yaay màng sinu koom li taamiina ñeel way xemmem teef yi nga xamante jublu nañ la yow Cheikh Mouhamadul Mansour ku dikk ci yow nga fajal ko aajoom te doo wonk te doo reculer ci fukki atam ak ñaar la ko turandoom cheikh Mouhamadul Mansour mu mag jàpp ci bopp bi ni ko yow de ayaa Ahmadal Mansour yaa najilal xalifati fala zilta mansuran la daa kulli wi jihati ci fukki atam ak ñaar ni ko yow de cheikh Mouhamadul Mansour yàlla bu yàlla deñ ba ëllëg nit ku ñëw ci sa kanam donte soxla bu mu mën a am lu dul dafa fajoo ci sa xar kanam ji ndax yow fii nga nekk ci mag ñi. nekk ci ndaw ñi ci dal baasin mimara ndax dalug baasin mimaraam ci sababu soxna assukan di yaayu Serigne Cheikh la sababoo moo nittali ci làmmiñam keroog bi nga xamante ni soxna assukan ñëw na fekk ko moog Serigne Cheikh ñu yor seeni buy di njambaan soxna assukan ñëw leen waaw yéen seen papa jógagul ci yéen ba léegi yëlëb seeni loxo yóbbu leen ci góor gi bira Ibrahima Dieng mu dal leen baasin mimara gannaaw ga nag la sëñ kër ñëw jël leen jox leen góor gi màmmaloo foofa sax fa la Cheikh Hadji si da baax Dabakh fekk Serigne Cheikh Tidiane si booba làmmiñ wi taxu ko woon a demee noonu ndax dafa xawoon a taq Alaaji Abdu jël ko yóbbu ko ci këram jàngal Serigne Cheikh wëlbati làmmiñam bët mu am fasaax ak yëpp yàlla dogal Serigne Mansour génnul Serigne Alioune Guèye génnul Serigne Cheybatu Fall ak góor gi Makhtar sàll Serigne Cheybatu Fall ñii ñoo jàngal Serigne Mansour ak Serigne Babacar si moom nag xeetu xam-xam yëpp dafa daje woon ci sëñ Babacar daan ko jàngale muy mboolem xeetu xam-xam yi moo leen wattu taxawu leen mook sëriñ Cheikh nag ma ndax ci ay weer la ñu magantee teqalikoo wunu teqalikooñ ba bi sëriñ Cheikh génnee dem Dakar sëriñ Cheikh it daan na wax naan fii ba gannaaw màkk képp ku fi gàkki téere muy mbind sëriñ Mansour dana la gàgganti te bu gàggee moom sëriñ Mansour kenn du ko gàgganti man Cheikh Tidiane nag laaj leen ma la ca gannaaw téere yaakaar naa ni loolu ci seede ci sëriñ Cheikh def ko ci sëriñ Mansour rek doy na sëkk sëriñ mën it yàgg naax ni cheikh mooy man maay moom yàlla boole leen bi ñuy jàng ba toll ci ibnu Achir ci la ñu fasante wóllëre sëriñ cheikh ni ko su ma amee doom bu góor danaa la ko tudde mën soor ni ko man suma amee doom bu góor yow koy tudde yàlla dogal bi sëriñ Mansour bu sëriñ cheikh juddoo ñu tudd ko tudde ko sëriñ soor mii teguñu ci lu dul ay weer yu néew sëriñ cheikh bii bu sëriñ soor te nekk fi tey di xalifaam juddu ñu war ko tuddi ci kër maam Mansour mu mag keroog ba ñu ko waree tudd maam mën Mansour mu mag daal di génn yem ci liir bi tudd ko te fekk sëriñ seex ak Serigne Mansour ak seegunu te xamul lu nu déeyoo woon ci zahir bi Serigne Cheikh ñëwee ak Serigne Mansour ñëw agsi ni ko kat alaaji Mansour ni leen ah yéen kat le ci seen doom ji ñu ne ko ndokkale ci mu mënu ko ah tudd naa ko ba noppi Serigne seex na ko waaw tudd doom yi jàmbur te xamul kun ko war tudd mu ko tudde naa la ko kon loola nga xam ni kon wàllu baatin rax na ca te boo seetloo ñoom ñaar bi ñuy jaayante kenn ku ne ni su ma amee doom bu góor danaa la ko tudde bu neexoon yàlla mu jox ku ne doom bu jigéen baa mu jox góor jox jigéen nga gis ni yàlla ci boppam dana jël nit teel a def ci moom wilaayaam boo xoolee seen wax yooyu ci boppam moom la yàlla dëggal ba bi ñu doonee mag yàlla suturaal leen ca alaaji Mansuur ma fekkiwul mbir ma moom it génn xam ni tur wi kii mooy borom mu jox ko ko nga gis ni kon loolu ci boppam hasard amul am na lu ci loo xamante ni nii kenn du ko leeral am na ci loo xamante ni mënees na koo leeral ci mbooloo pour nga xam ni rek ñoom yàlla moo leen ràng lim leen ràng ñuy boroomi cër sëriñ Mansour daan na wax naan man kenn xamuma ku dul yàlla ak sëriñ Babacar Sy loolu mu daan wax nag moo tax fii nu toll nii wax ci moom ku mu mën a doon dana lott ci yow pour nga mën a wax ci moom lu dul la nga xamante ni rek alquran wax wa ma shahid naa illa bi ma alim naa wa ma kunna lil ghaybi xaafisina sëñ Mansour ku daloon la jullit la woon koo xamante ni nit ku sàmm woon la ku wattu woon boroomam la ku bëggoon ni mbokkam la woon koo xam ni foo ko fekk soo bëggee dégg wax ju rafet toogal ci wetu sëñ Mansour mësuta nangoo wax wax ju ñaaw te mësuta yit nangu kenn koo xam da danga wax wax ju ñaaw jëmale ko ci nit ku mu gis nga am problème ak sa moroom dana leen woo yeddi leen defar leen yëkkati alalam def ci ñoom koo xamante ni jàq nga baa ñu génne la lu yaas dana la woo ba dikk mu defal la lam lay defal te kenn du ko yëg maye oto moo ci gaawoon yóbbu nit ñi màkka may la kër lépp loo xam ne nit naw na ko ci xeetu alal sëñ Mansour keroog mën na ko jël terale ko nit te fii nu toll nii du ko sax déranger yii jikko bokk na ci jikko yi nga xamante ni sëñ Mansour daan na dox mbokk jékki ba mu yàgg xool ni ñii samay mbokk la ñii samay dëkkandoo lañ mu topp dëkk bi di seeti ñenn ñi bu jee gis ñennat ci mbokk ñi dana jël ay saaku ceeb ak ay saaku dugub ak lu ne te it bi muy wir néew boo xamante ni mës nañ la indi moo daan génnal boppam julleel la boppam gunge la ba ca armeel ya ku mu xam ne yaa ngi ci hôpital feebar it daan na jóg di seeti malaat yi ci hôpital ku mu yëg ne mës nga feebar wala dara dal la daan na la jël moom ci poche boppam woo docteur wala mu jël oto yóbbu la ba principal wala hôpital bu mu mën a doon ordonnance bu génn moo koy jënd jël ay nit takkal leen ay soxna ngénteel leen ba noppi may leen ay kër yóbbu leen màkka bu tabaski jotee mu génn ay xar yu kenn xamul lu mu toll bi bu mu mën a doon te ci famille bi lay njëkkee muqaddam yeeg yëpp ku ci ne mu jox la xaru tabaski ba bi mu génnee àdduna yi taxul loola dakk tey jii ba fii nu toll nii doomam mujj na ko def sax ci tabaski ren jii amul koo xam ni xar daan na war ci yow te joxuñu la ko su gàmmu jotee noonu la daan def kër gu ne mu yóbbu fa nag yóbbu fa ceeb yóbbu fa dawlin yëkkati ñun ñii ñëpp kenn ku ci ne kum ci mës a gis événement jub si daan na la jox yére yëkkati xaalis jox la amul kum ci mayul kër ci ñun ñii ñëpp te li gën a neex ci jikkoy sëñ Mansour soo àndee nit di ko donte le tekki woo dara dana fexe ba sagal la ba yow da ngay foog ni sax dara nga boo gàttee xel mën nga caa gis sa bopp ku mënoon a sagal mbokkam la ku mënoon sagal nitam te it ku mënoon nitam la sëñ Mansour itteem yépp du dara lu dul jàngale ak bay lu mu ca am génne azaka ba mu xam ne azaka ci lii la mu génne ko seet la ko ca lew mu jël ko di ko dundee di ko def ci biir yi bokkam jàkkaak jumaa nag moom li mu ci tabax kenn xamul lu mu toll kenn xamul nu mu toll xam-xam jaraloon ko lu ne li mu ibbi ci ay nit léppam xam-xam la woon moom daal sëñ Mansour dañuy ñaan yàlla yàlla na yàlla yokku leeram ci fu mu tëdd lu waay wax ci moom des na di ñaan yàlla njaboot gi mu fi bàyyi yàlla yàlla guddal seen fan Serigne Cheikh mi nga xam ni tey mooy xalifaam nekk fi topp ci ginnaaw ay baayam yàlla na ko yàlla sàmm sàmm nag rakkam ji nga xam ni mooy Cheikh Mouhamadul Habib mi nga xam ni tey lii bu yaatoo ba nit ñi mën ci ak ci gannaaw yàlla c'est grace a lui kon nag moom ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla may ko ak wér guddal fanam di ko ñaanal doomam yëpp nga xam ne mooy Serigne Moustapha si Djamil ak Mame Malick ñoom Abdoul Aziz ak ñi nga xamante ñooy jigéen ñeeg ñëpp di ñaanal yàlla ki nga xam ne tey mooy ndeyu kër gi nekk fi di magu kër gi di soxna Fatou Sy Mansour mu ngi ci biir yàlla na yàlla yokk wéram yàlla guddal fanam mook Serigne bay si Mansour ñoo bokk ndey ak baay Alaaji Mansour jur leen tey jii moo nekk ci kër gi di yaayu kër gi di léppi kër gi moom daal di ñaan yàlla lépp lu fi aajo indi ci taalibe bu mu mën a doon yàlla na yàlla dëgg ci barke bis bi barke Cheikh Mouhamadou Mansour faj loolu te yàlla mën na lu ko ëpp yàlla na ko yàlla def sotti jàmm ci réew mi di nuyu borom télévision bi di El Hadj Ndiaye di ko ñaanal yàlla depuis ñu commencé ba léegi lu mu mën def na ko ak lu mu mënul ñu ngi koy ñaanal yàlla téléem beeg ñi mu àndal ak ñi nga xam ne mooy équipe bi mu joxe ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu sawar ci lool lu ne def nan ko di ñaan yàlla daal na yàlla yokk télévision bi te barkeel leen ci barke Cheikh Mouhamadul Mansour wasalaamualeykum wa rahmatullah منصور قد وليتم سر الخلافة موردا الظمآن أسراكم منصور خير ولدتم سر القلاء لما أريد سمعان يا مجمع البحرين يا علم الهدى فخر العشيرة نزهة الأكوان يا قرة العينين يا كنز الغناء للطامعين وحاتم الأقران يا سبويه زمانه بل قصه علما وفهما دون ما نكران أو مسلمان إن كنت جاي إلى ما روي عن صاحبي الآيات والبرهان من دي في يلا لي نيول الرب جاي سويتاس أمنا سنم نيانا لون أقاس نعملو نيقص أمنا سنم نيانا لون أقاس نعملو نيقص ñii mu solal leen ak dara ak ay daram yuy jale defar ne leen ñuy dara ñuy seeta ciy dimbulee Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour si sabaay bu baax ba alhaji Abdal si Malick nee Mansuuru santal yàlla sant gu ñëpp xam loolooy li jaadu defal bi duuni tawaani ndax santal ilaahaka daayiman ndax mu dolli may bila nuqsaani jàppal ci lii ma wax nga gëm ko ca def ko muy ngànnaay ci yow tanju mina saytaani sa baay ne sahidal kira mu lakum sama zamana ma fi iya mansuru min sana sahidal kira mu lakum bi anna zamanakum maa fi mansuur min shanaani maam abdu neena inna al ibadata alafu wa tahababu lama ataytum duuna ma nukraani Cheikh Hadj Abdoul Aziz Sy Malick neena borom daara ji inni araka mujaddidan wa mushayidan أركان من هدمت من البنيان دمتم كما رمنا لكم وتروموا من ربنا ذي العز والسلطان مام عبد نينك ما شئت سل مولاك تعطى ولا تخف نوب الزمان وصولة الحرمان فلتشهدوا شكري لما لا نلعلي في مدح شيخ عارفين عثماني راكم منصور خير ولتم سر الخلافة موردا سماء إن القصيدة هذه لهدية من فيض الشيخ أحمد التيجاني قذا إليكم يبننا وحبيبنا من عمكم عبد العزيز الفاني صافي المحبة فيك يا علم الهدى ولآلكم طرا عظيم الشان منك عن شيخنا شيخ الخليفة راضيا كن ربنا بالمصطفى العدناني عن دينه جازاه خير جزائه وعباده في سائر الأزمان منفعشوا جميعا ظل عين عيش أرغد في صحة وسلامة وأمان حاوين ما تبغونه من سودد والفوز بالمأمول والرضوان وبجاه والدك الكريم وجدكم شيخ المشايخ نخبة الأعيان صلى الإله على النبي وآله خير الخلائق إنسهم والجان والآل والأصحاب آن جمدي diine ahli al-ulaa wal izzi wal iimaani wal aali wal asaabi jumi diine ahli al-ulaa wal izzi wal sultaan wa alaykum أزكى السلام وأعظم يا واردون بروضة كي تنعموا Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour xasida bi moo ko bind def ko ci dairatul muntadi biina li taalimi ulumi diini di ko dalale gan ñi ñëw mu ni wa alaykum azka salaami wa aadamu yaa waariduuna bi rawdatin kay tanamu mu ni ahlan wa sahlan marhaban bikumu maan tarxibuna amthaalukum mustalzamu ñii ñëw fala antumoo xayru duyuufi li manzilin tabrizukum aqraanukum qad yulamu qad ani bi cheikh alxalifati dannada ani bi lakum alfaxaaru bi naylikum cheikhan tabiban aarifan daa an dawiyan yuktamu wa alaykum aska salaami wa aadamu yaa waariduuna bi rawdatin kay tanaamu borom daara ji moom yàlla xam na ni moom dimension moom kenn mënu ko natt yàlla xam na ni démb ba léegi moom lañu ñu fanaanoo waxtaanee daanaka kër docteur Macoumba Gaye ak docteur Dieng ak docteur Diakhaté fa la ñu ci ci ci dimension rek la ñu waxtaan di ko bëggee fu ñu toll moom xam naa moom euh, vraiment jëmm ji gisatuñ ko waaye ñoo ngi koy dund ñoo ngi koy dund donc euh, yal na yàlla yàlla mottali leeram yal yàlla dolli leeram waaw waaw te taas ñu ci barkeem jaay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bi di àllahu taala anu jërëjëf xanaa di jéggalu ndax tuuti naa lool ci seede ci Seydi Hadj Mansour ndax kenn du seede ci sa kilifa kilifa moom cëram mooy jox ko kilif téefam doon taalibe mu des di sëriñ euh, lii toogaay yu soññ sañu bopp la di soññi mbooloo mi yëpp ci li nga xam ne moo ko yitteeloon muy diine ji tariixa bi kër gi rafetal bi jokkoo bi jàng bi dégg bi jëfe bi mëtal bi te yàlla ci barke mu nangul ñu li ci ne mooy boo gisee ñu ñëw fekke rek ñu ci boole waaye Seydi Hadj Mansour wax dëgg ku fi ñëw it fekkee la ci boole ndax ba koy yàlla di sedd kenn fekkewu ko li amit mooy danañu góorlu ñu ñëpp ci as néew liñ ci jot a mos ñu jéem ko jëfe ful ko jéem ko def mu di yiw ci ñun ñëpp jataay bi jataayu sant la jataayu bége la jataayu ziyaar la jataayu jàng la jataayu it dellu ci jàngale yi la te xam ne bu ñu wootee lu ni mel ñu ne sëñ bi la ñu bëgg sargal lenn ci li mu fi ba dafay jaadu ñu doxaat doxu taalibe doxaat doxu taalibe mu mooy ne lu mu rëy rëy lu mu rafet rafet lu mu baax baax li doon yitteem mooy jàng jëfe kon boog di soññi sañu mbokk yi di soññi sama bopp ci yal nañu yàlla dimbali ci jàng jëfe ñi ñu fi jëlsil sañu image yi nag yéen a ngi taxaw ci wesaare xam-xam yéen a ngi taxaw ci jox kàddu gi boroom xam-xam yi ngir ñu jàngal ñu kon boog ñun xanaa des rek di jéem a góorgóorlu jéem jéem mos dara rek buñ ci mosee dara it yàlla na barkeel waaye ñun na tuuti nañ ci seede ci sëñ bi nag tuuti nañ ci lool dañuy barkeelu rek ak jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, bu ñu julee si eh, bu ñu jullee bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla tas ci barke Seydi Mouhamadul Mansour euh, comme ni ko suñu mag waxee rek euh, ki nga xamante ni moom nga yaakaar àdduna ak alaaxira da ngay nekk tuuti pour sedda ci moom ki nga xamante ni moom moo la defal li nga xamante ni euh, moo la defal lépp daanaka. moo tax nga xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax nga xam tarixa cheikh moo tax <coughs> moo tax ngay yëngatu kooku da ngay nekk ku tuuti pour sedd ci moom donc comme ni moom nu woon tàmm di wax rek daan wax ne ndigal moom boo mënee jëfal boo mënul jéem si loolu moo tax tey ñu yëkkati kàddu ñu sañ yëkkati kàddu euh, di si jéem a wax ay quelques baat ak aussi leen lu mu doon rappelé di ko cheroon benn principe mooy faj fedd di coloré donc kon ki nga xamante ni euh, bi mu nekkoon ci suuf yi da ngay da nga àndoon ak moom donc bu fi dëddoo tamit da nga war a continuer matal coloré boobu euh, rax si nag bu fekkee coloré boobu noonu euh, tarixa cheikh la attu Seydil Hadji Malick la donc ñun suñu teewaay fii tey Euh, lu war la parce que teewaayu taalibe la teewaayu njaboot la donc euh, euh, dañuy profiter rek ci bés bi pour gën a ñaaxaat suñu bopp gën a soññaat suñu bopp gën a góorgóorlu di ba di tegee ci tànk yi nga xamante ni moom la tegoon tànk yi mooy lan mooy tànk yi suñu maam sëñ Babacar si tënkoon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 allahuma fa salli wa sallim ala sayidina muhammad annabiyi almuxtaar wa ala alihi al athaar wa saxaabatihi al axyaar wattaabiciina bi ixsaani ma taaqaba leylu wannahaar ulaayika xisbullahi ala inna xisballahi hum almuflixuun salaamaaleykum suñu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di sant yàlla bu baax di ñaan yàlla bis bii nga xam ni mooy bisu cheikh seydi mouhamed mansour yàlla na yàlla def ci suñu texe àdduna ak alaxira ñu ñëpp képp ku fi teew yàlla setal la wecc ci biir ak ci biti Cheikh Seyd Mouhamed Mansour nag kenn mënu ko fay tabaarakallahu xam naa ni nit ñi dañuy xër ci moom lu nekk ñu wax ko waaye li kilifa yi wax ci moom loolu doy na sëkk euh, alxaaji Abdul Aziz ca testament ba ku nekk xam na ni dafa wax ni bil ilmi wa taalimi fuqtum xayrakum wal bazli wal infaqi wal ixsaani boo demee ci burdu bu saydi dafa wax ni faaqa nabiina fi xalqin wa fi xuluqin walam yudaanuuhu fi ilmin wala karami yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ñi mu tiime ñëpp ci wàllu jikko tiim leen ci wàllu bind tiim leen itam ci wàllu xam ba kenn dootu ko jot ci xam moom Seydina Muhammad moom la alxaaji Abdul Aziz wax ni Sëriñ Mansour li mu rawee ñëpp ba kenn dootu ko jot ci xam kenn dootu ko jot mooy xam-xam maanaam jàng ak jàngale ci la rawe ñëpp ba kenn dootu ko jot ci jàng kenn dootu ko jot ci jàngale waaw bil ilmi wa taalimi fuqtum xayrakum wal bazli wal infaqi wal ihsaani tabaarakallahu loolu lu rëy la barki démb maa ngi wax ci daje bi doon daje nga xam ne ñoo ngi ko def ci ndar université bu ndar ma ni leen sëñ Mansour bayit bi nga xam ni moom la Euh, baayam sëriñ Babacar si wax maamam Seydil Hadji Malick kooku moo ko donn ndax sëriñ Babacar dafa ne Seydil Hadji malik wa kullu fannin lisaanul xaali qaala lahu alqil asa talqa min taysiri ma asura fànn yëpp nga xam ne alaaji Malick Seydil Hadji Malick fànn yëpp la xamoon ba bépp xeetu xam-xam yàlla may na mu xam ko fànn yooyu yëpp nag ni alaaji Malick sànnil sa yat fii la aruut ak mantiq bayaan siira xeetu xam-xam fan na yooyu nag moom la Serigne Mansour toog ci daara ji di ko jàngale fanweeri at ak ñett bépp xam-xam bu way indi mu ne la loo teg loo teg boobu mu daan wax loo teg loo teg loo teg mooy loo wax rek ma firi loo indi ma firi la waaw mooy loo teg ma ni ko nag fànn yooyu nga toog ci daara ji moom Serigne Mansour fanweeri at ak ñett ku indi aruut mu ne la loo teg mantiq loo teg bayaan loo teg siira loo teg aruut loo teg ba mag ñi teg ka fi faf tabarakallahu mu nekkal fi mag ñëpp nekk fi fan euh, fukki euh, at ak juróom fa tabarakallahu kon nag kooku royukaay la ci lépp ci biir ak ci biti ci wàllu xam-xam ba wallu jàngale ba wàllu daraja ja wàllu tabe ba wàllu maandu ba lépp war nañ ko roy ci moom ñëw na ndar ni naa ko firil bayit boobu ma doon wax léegi bil ilmi wa taalimi fuqtum xayrakum wal bazli wal infaqi wal ixsaani am ko ko woy mu ni ma firi ko ma firi ci wàllu wal bazlu mooy yulli di yulli di joxe wal infaqi ak di dépenser wal ixsaani ak di rafetal mu ni ma déedéet ixsaan boobu du firi rafetal sama baay Abdou dafa ni ma ixsaan boobu mooy yow Mansour yaay joxe boole kaak ree di joxe di ree yow rek yaa koy def tabaarakallahu kon nag sëñ Mansour yal nañ ko yàlla fayal yal na yàlla yokk leeram njaboot gi yàlla saxal leen fi ci darajaay Muhammad ñu yàgg topp ci seen gannaaw wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm yaawaana woote ko ndam wuy ji rek ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm